waaw kaabo bi nga xam ne moo xew fan yi si àjjuma bi jàll mi ngi xewee Paaleen ci mbaarum sëñ Cheikh Fall Mbawar kooku ñun bi ñuy woo fekk na daanaka mi ngi pare dañoo dem wooyu sàppoor jëli leen ñu ñëw biñ ñëwee nag sàppoor ni ñii du suñ liggéey parce que dañoo wére di xel te ñu wére di ñun xamuñu seen i mbokk ndax duñ yor ay pince affaire yooyu mën leen waaye bu ñu wéradee te feebar si mbedd ay ay doomu aadama lañ da nga leen war a mën a jël yóbbu pël euh, yóbbu hôpital ba xam waa hôpital lu ñuy wax ñoom tamit ñu daal di ne ah daal di dem bàyyi ko fa. biñ demee bàyyi ko fa nag bàyyi faale foofu waa kër sëñ seex Fall Mbawar ñoo ngi leen di nuyu euh, soxna sëñ Cheikh Fall Mbawar bi ni ma yow yaa fi sës yow yaay dalal xel bu Serigne Saliou euh, te ñu wéré di ñëpp ku ne xam na ne yaay seen ndey di seen baay di seen lépp man nag xam naa ne sax day dem ndax ni ma ko fekkee doy na waar fekke tànk yi ma daal di koy yëkkati wéer ko si poto bi mu gën a jige euh, daal di koy borosal gimiñ gi fekk weñ yi dañoo sololoo si gi waaw foofu weñ yi bëri fi ma daal di jël boros bu bees boroosal ko bi gimiñ gi yónnee meew biridel pour mu naan ko pour tàngaay bi wàññi ko meew bi avant moo agsi faatu na waaw bi mu faatoo nag ma daal di na sangu ko waaw sàmm ko ba waaw. est-ce wax naa leen loolu ni leen dañoo nekk ci jamonoy mbas leen loo leen ci xalaat si kii ñoo ma daal ñu wéré di xel moom ñun moom mënuñoo kii ndax xamuñu seen mbokk man leen léegi kon ñu wéré di léegi lan la leen Sénégal deseel lan président ñu wéré di xel nekk ci mbedd yi lan la leen Sénégal deseel comme ñoom bu feebaree sappoor amul ci ñoom dara hôpital yi amuñ si ñoom dara léegi kon ñun lañ leen leen deseel aide yi ñuy wax ak ndimbal yi ñuy wax ak ak ak social yi ñuy wax fan la jëm ñoom ñoo ko gën a yaayoo man waxuma ñoom ñu jàppale ma nañ leen dimbali ak système bu ñu leen mën a dimbalee ñu wér di xel parce que man tuubaa laa nekk di ko def Sénégal du tuubaa rek région yëpp yaatu na nañ leen dimbali ba kenn ku wér di du fanaan si mbedd bi ñun dañuy gis ñoo xam ne am nañ ay juróom benn fukki at wér di xel ñuy tawte ba ndox mi di taataa bi di di di di di leen mujj di bëgg a kii dënn yi di leen fekk ci mbedd yi ay xale yu ndaw yu wéré di ak ñoo xam dañ leen abandonné te nit ku nekk si kër nga juddoo kenn juddoo si mbedd bi ah muy nekk lu doy ay jigéen ñoo xam ne tamit dañuy wéré di xel nekk si mbedd yi ñu leen di viole ñuy am ay doom bëri na ñoo xam ne si doom yoo xamante si bu ñëwee fi eh, seen yaay mais doom ji meew mi war a nàmp man maa koy jënd ndax seen yaay day wéré di duñ leen mën a nàmpal waaw ak ak yelleef googu daal bëgg naa réew mi taxaw ci bu baax. Euh, waaw hmm. hmm. man moom euh, damay wut nit ñi pour ñi nga xam ne ay sappoor lu mel ni pëlis lu mel ni borom doole yi waaye dafa mel ni dañ may daw man moo tax ma teel a xam sama bopp di di di di ma jaal di dimbali ñi wéré di waaw pour li ma seq ak moom jamono jii nit ñëpp seq ak ñoom buñ gisee ku wér di feebar di bëgg a dee soog nga dem waxi ko sappoor man nag duma leen woo damay dem ba àgg wax leen ko waaw police it loolu laa laa laa seq ak ñoom waaw. boobaag yi ay ay junni nit bëri na ci xale yu ndaw yoo xam ne sax dañoo wér di maa leen yóbbu ba seen kër ni leen kii lan moo tax mënta nekk ci kër gi damaa bëgg ngeen expliqué ma ko. buñ expliqué pare ma ne leen li waxoo leen fi dara kii bis bu bis mën naa dem ba màgg ba yor kër gi ba dimbali leen damaa bëgg nag mu nekk fi lu aju ci wàllum yére ay saabu lépp lu muy dundee mën naa koo res mais na nekk ci kër gi ndax ma it amaguma fu ma leen dugal waaye képp ku ci yor ku wére di téye ko sa kër lépp loo xam ne mm, muy yére muy saabu muy lu muy lekk lépp bu ko tumuraanke mën naa dikk fi ma jox ko ko ba mu doyal sëkk waaw waaw nañ ci jàpp ak nuñ ci mën a jàppee Sénégal lu nu war a toog di ko waxtaanee la ñuy wéré di xel bari nañ ñoo ngi ci mbedd yi te mbedd yi ak taw beeg yooyu ak tëli bi da ngay gis koo xam day wéré di taxaw si digg tëli bi sëfoor si korne korne ba sonn mu taxaw si biir digg tëli bi sëfoor si bu ko ci laal day am problème kon dimbali leen daa bokk ci dimbali sa bopp ñu wéré di ñooy dajale mbalit yi mbalit yi ci ci ci territoire yi ñooy ñooy def lu ne dimbali leen daa bokk ci taaral sa dëkk daa bokk ci développement tuubaa gi bëri na ñuy woote ngir tuubaa gën a baax gën a ñoŋ ñooñu tamit nañ bàyyee xel ni da ab dëkk balaa gën a mën a avancé ñi wéradi dañ leen di dimbali. day bokk ci liy taaral dëkk bi ndax man bëri na ñoo xam ne waa Touba ñëpp mën nañ ci seede tout ñoo xam ne ci territoire yi lañ nekk ñii ci tëli yi ma jël leen tambalit mañ fa daa dajale ak di kar oto yi ak di simmiku loolu ku ne xam ne ni taaralut ab dëkk waaw mhm. may sant bu baax samay ñaani waajur ak sëriñ Fallou Fall mu sëriñ Abdou Sakor sunu sëriñ di sant sëriñ Saliou mi nga xam ni moom lañ ma jox bi may tuut tànk mu yor ma def ci man li mu def ci man waaw jërëjëf